nga génne nga génne ko mooy lan ngeen tegoon sur la table comme des revendications yoo xam ne bëggoon ngeen ñu satisfaire ko comme urgence su ko defee lii yëpp du ngeen ci yegg. voilà donc euh, bi d' abord dañu amoon protocole d' accord 2014. bi ñu signé woon ak gouvernement Sénégal. protocole 2014 seen de rémunération bi loolu ak euh, problème terrain ay les les ZAC mooy zone d' aménagement concerté terrain yi waroon jox syndicat yi pour liggéeykat yi. Mhm. ci système de rémunération comme problème ZAC yi état jotu ko réglé ba léegi réglé wu ko système de rémunération daf ñu ne day dafay commettre benn cabinet pour kooku def étude bu jeexalee bu pare si les soogu wax nit ñi lan lay mën a def bi kooku boobu jeexalee daf ko ne conclusion yi daf la cabinet bi dafa ne secteur santé moo gën a néew le salaire ci conclusion yi cabinet bi loolu bindu na ko. du woon secteur éducation. secteur santé mu ne salaire les salaires les plus faibles. Mm-hmm. santé la nekk. Mm-hmm. mais ñun ñu am yaakaar ni xëy na dinañu équilibrer au moins dina am équité ci salaire. Mm-hmm. donc état commencé négociation euh, par la suite. mu am problème mu euh, transporteur yi. mu am agriculture. mu am problème éducation. ñoo ñëpp négocier naa ñoom ba tënk ak ñoom dara ñu conclure yooyu jeex. mu des santé ci ci état buy gérer normalement un état waruloo sax permettre waa santé sax jóg da ngay nekk dans la continuité mm-hmm. Mm-hmm. régler problème yi balaa santé di jóg nga ne leen léegi ñun bu ñu paree ngeen nga def annonce ni tel jour telle période on va rencontrer les syndicats de la santé pour eh, amorcer les les règlements au niveau de la santé mm-hmm. su ko defee nit ñi dañuy toog xaar période boobu ñu ñëpp ñoo toog déglu ko lan la ñuy proposé kon situation bi doon mais defuñu ko ñu toog seen place ba nit ñu jóg ñu poser euh, euh, le problème du régime indemnitaire ñu jóge ci loolu ñu am benn plateforme parce que ci diggante gi imaginez le 2014 2018 mais évolution normale la donc dafa am question mhm. évolution euh, normale de la de de de l'homme mhm. donc les questions nouvelles ñu ériger ko en plateforme revendicative jëbbal leen ko mhm. ministre bi mu ñëwee keroog dafa ne ñu dey plateforme bi étudier nañ ko waxtaan nañ ci ak kii mhm. am nañ ci ay réponses mais autour de la table joxul benn réponse kii ci plateforme bi mhm. donc non seulement réglé wuñu problème mu régime indemnitaire mhm. euh, réglé wuñu problème euh, euh, plateforme revendicative mais li tubaab di wax ne calendrier grec maanaam boo xam ne nit bu la ne damay daje ak yow te wax la bés wax la waxtu wax la naka la moom la ñuy wax calendrier grec doo xam dara donc moom la ñuy présenté ils nous ont présenté un calendrier loolu nag lañ leen ni en attendant de régler vos les dat et vos votre calendrier grec la ñun on retourne sur moo tax moo indi 72 heures de grève bi nii ngeen continuer seen léegi régime indemnitaire boobu mhm. non seulement les régime ya mais dañoo ne di eh, prime covid yi mhm. dañ ko war a fay mhm. travailleurs municipaux yi parce que arriéré la woon heure supplémentaire ak fonds de motivation de eh, de eh, troisième ak quatrième trimestre dañ ko war a fay les ayants droit ñu ne leen fonds de motivation comme que dañ koy fay contractuels yi nekk hôpital Dakar dañ ko war a fay ñu nekk Thiès ñu war nekk Diourbel ñu nekk yeneen régions yi dañ leen ko war a fay mhm. te foog ñu yaatal leen ko parce que sénégalais leen comme ñeneen ñi mhm. mënuñu ko fay ñu fi nekk ñu bañ ko fay ñi ñu nekk ci région yi mhm. loolu tamit ñu poser ko comme régionnaire ñu poser leen le problème eh, statutaire ñu poser un problème communautaire yi agent communautaire yi parce que bu ñu dégg agent communautaire ASC dañu yaakaar ni jànguñu daay nit yoo xam ne dañu leen for ci mbedd rek indi leen déedéet ci AIC da nga ci am médecin sage femme infirmier da nga ci am des des de grands intellectuels mhm. ay ñoo xam ne licence la ñu ñu am master da nga leen fekk ci AIC dañu ne ñooñu nañu créer conseil d' administration ñun mhm. au niveau des établissements des des centres de santé mhm. ñu def conseil d' administration à la place des CDS la bi géré bu remplacer comité de santé ñu mën a gérer personnel boobu jéem a seet ni ñuy gérer seen plan de carrière ñu nu am un emploi stable su ko defee ñooñu tamit jógee dans la précarité. Mhm. ñu wax leen tamit les les contractuels le ministère de la santé ak nekk ci yi. Mhm. nañ leen dugal fonction publique parce que état am na moyen bi. parce que agent de sécurité vingt mille la jël. Mhm. te bu ñu jëlee quinze mille agents de santé ñi ñuy chômer nii yëpp dinañ dugg fonction publique. am na ñoo xam ne pare nañ seen formation fu mu nekk ni ñu ngi toog seen kër amuñu amuñu poste amuñu fenn. mais ñooñu fa ñu. alors personnel bi dafa manqué personnel ñu kat hôpitaux yi bees la ñu créé. ko amul personnel. xale yaa ngi toog formé ba pare ñu ngi toog léegi tey tey tey boo lancé woon nga ne ñooñu quinze mille ngay jël vingt mille mhm. di nga recruter ñëpp ba doo gis sax kenn kuy traîner mhm. mais loo loolu état mun na ko mhm. bëggee aar seen bopp ñu ne agent de sécurité vingt mille jël nañ ko mm-hmm. parce que ñoom seen bopp la ñuy aar mm-hmm. donc c'est-à-dire que il faut pas que ñoom ñuy xalaat seen bopp nañ xalaat population bi mm-hmm. loolu mooy problème bi et loolu amuñu ko le problème yi dafa bëri le problème de la formation le relèvement de niveau technicien supérieur infirmier sage-femme ñi xam ne def nañu eh, formation bi pare ñu war leen yóbbu eh, hiérarchie A ne ñooñu ñu ngi toog ba léegi kenn waxul dara ci ñoom mais loolu yëpp mënuñ ko dajale ba pare ñun ñu toog loolu moo waral mhm. li ñuy def nii mhm. te di nga damay tàmm di wax ni mhm. man souvent damay wax ni xel ñii xamuñu ñan lañ ko digaaleel ñoom bu fekkee ne dañoo yaakaar ne dañu leen dénk réew mi lu leen mën nañ ko def ñun ñi nga xam ne yoon yor nañ syndicat responsable lañ ñun jàpp nañ ne fi ñu bëgg a jëm ak ñoom dinañ fa yegg ñu yàlla yegg fa Maria ñaanuñu yàlla mais mais mais Maria man li ma jaaxal mooy le ministère de tutelle dans tout ça seen